moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati sëriñ dafa si yéene waxtaanee actualité de la semaine ba ni tamit am na li nga xam ne moom nekk mën na wax actualité phare actualité phare ci réewum Sénégal muy tamit toujours le nom de Ousmane Sonko revient dans ce pays ça fait deux ans donc tey am na ñu bari ñoo xam ne génn nañu euh, nekk si pouvoir bi naan Ousmane Sonko waa Qatar donc ko doon financé extra extra moom ak parti bi nga xam ne mooy ex-Pastef est-ce que en réalité bu loolu amoon euh, procureur warul mën a auto-saisir nga xam ne noonu koy wax wala ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mën a def euh, pour diffamation waaw xam nga état mu ne ak ni Sénégal li doxee mm-hmm. ak fii mu toll ci ay doo xam mm-hmm. information bu ne ngay dégg mm-hmm. te Euh, am na yoo xam ne itam man du dugg sama nopp sax ba sama xel di ko nangu comprendre nga koo xam ne yow maanaam bi mu politique agul wala bi mu doo dugg si politique bi nga ko nattee fépp fépp foo xam ne jëm nga faa jaar pour xool ba xam kii luubal na wala nangam nangam jaaroo ko nga xam ne fu ne taxaw na fa ne su ma ku mën topp un franc ma topp fépp fu ma jaar def naa ay def naa nangam def naa nangam doon naa du see nangam du see nangam. toppoog fi bàyyi ba nga xam ne dugguma ko ci kaso bi nga xam ne mu wax. nga génn say dossier ne def na nangam ak nangam loolu bu Sénégalais yi dana dugg seen bopp seen nopp sax ba seen xel di ko nangu. dafa am loo xam ne fi ne euh, intox intoxication maanaam boo ko jéemee dugg ci xel Sénégal du dugg. maanaam wala sama classe boobu du ko dana dugg sax seen man fi yàlla dogal na su ma xëyee. maa ngi sama téere su information yi may lire tam maanaam boo xoolee sax même ba ci yenn site euh, français yi sax duma ma ko du ko suivre Sénégal fii waaw parce que li am Sénégal hmm. dafa am ci daanaka monde euh, journaliste journalisme hmm. boo xoolee lu mel ni ay France 24 lu mel ni ay euh, Jeune Afrique ay yu bëree bëri hmm. comprendre da ngay suivre maanaam fekk fa benn information bu ñu joxe boo xam ne dana leer ne lii nii euh, am na euh, kii prime bu nekk ci gannaaw léegi nag bu demee ba xam ne noonu la demee léegi euh, li ngay soxla si information du maanaam du du du loo dégg rek da koy gëm wala loo luñ la wax rek nga nga nga jàpp waaw moytu sax parfois ñu ñu lay sonoriser ak ay yenn débat yi wala waaw yenn en est-ce que tey jii waa xam nga mooy li la wax rek euh, dossier boobu mm-hmm. euh, sénégalais yi. Mm-hmm. bu dee comme sénégalais lañ ko lañu bëgg a gëmloo ne Ousmane Sonko am na nay milliards rek Ousmane Sonko def na nii def na naa. Mm-hmm. sénégalais yi xas nañu gëm li gëm Sonko ba noppi. fi bu ñu ne woon ah, maanaam Sonko moom immeuble bi moom oto yi moo sàcc douze milliards moom nangam nangam. yaa ngi si rapport of nag bi. moom laa la wax fa jëm ni mhm, mhm. waaw ndax dégg naa ko. Mhm. waaye euh, dama koy dégg noonu. waaye du du du du lu xel mën a nangu. ndax fi ne man parfois sax li lii tax ma dégg yenn information yi ku mel ni yow tey. nga xam ne journaliste nga da Euh, inf def ay investi investigation. lay toogal mu ne ma sëñ bi yënga nangam nga nangam. mais am na télé yoo xam ne dama leen seetaan. am na nit yoo xam ne boo taxawee nii ci écran moom su ma su ma yore sama téléphone ba défilé ndax man du ma seetaan télé. su ma yore sama téléphone ba défilé su ma excès ci yow damay zappé. waaw parce que duñu wax dëgg. maanaam am na ñoo parce que tey ñoom loolu dañ ko defee euh, chasseur maanaam. naan chasseur de prime maanaam dañ ko def rek defuñu ko ngir liggéey la boo xam ne dafa noble dañ ci war a liggéey yor yor seen njaboot yàlla sant leen nit ñu war a nekk ci suuf di jaamu yàlla jàppewuñ loolu maanaam dañu jàpp ne dañ ci war a nekk milliardaire ak ak ala lu mën a am rek nañu fexe ba bu ñuy yàq daru nit wala di lëndëmal xelu nit ñi wala di ak lu mën a am ci ndax nañ am xaas rek. Ah, nañu encaissé d'accord bu ko defee su ma xamee ne kii genre boobu la. Mm-hmm. damay romb. d'accord Diop am na am na solo Diop ñu continué xam ne mooy oustaz bi ko tey jii ban bi ci am d'après procès bi nga xam ni moo amoon tey. bi mu ci am mooy xam nga Sénégal moom. Mm-hmm. Euh, li nga wax ne diine ji yàlla moo ko moom. Mm-hmm. tey fi ne mën a wax. bu la taxee wax loo wërta wax tam da nga koy réccu wala maanaam mbooloo wër la boo waxee ñu apprécier tax lu la neex wax jar naa moytu euh, dafa am loo xam ne pas-pasu nit maanaam pas-pasu nit nit ki na ci bañ a sori mën nga def sa daawa mën nga woote ci yàlla ndax bëri nañu ko fi def mais pas nga ben offenser ben kuréel wala offenser euh, ki manam pas-pasu nit mm. comprendre nga. waaye yow ñi ñi ngay offensé sax yow nekkoon nga fa taalibe. voilà moom laa dox ndax keroog mi noonu laajee nee naa leen. Mm-hmm. maanaam nga bokkoon ci dara même boo ci bàyyee sax maanaam maanu ca wala nga rafetal. Sénégal dafa ndax fi ne man bugguma sax mm-hmm. lit di jullit ak jullit di dem bay àgg ci ci ci fan ma xam doon na benn lépp mën nañu ko waxtaanee. Mhm. waaye day fekk maanaam kañ ñu waxal tam am ay nopp di déglu. ak maanaam bañ a am benn mhm. euh, maanaam bañ a osé quoi. Mhm. ba lu la neex wax noo neex waxee ko. Euh, wax dafa ànd ak ay teggin. yonent yàlla Moussa bi ko yàlla yónnee ci Firawna ah maanaam nee na ko xawlan lay nan la ko maanaam fexeel ba wax ak moom wax ju nooy wax ju xama mm-hmm. te ko ku wedd yàlla la Sénégal dëkk la boo xam ne quatre-vingt-quinze musulmans mm-hmm. quatre-vingt-quinze pour cent musulmans léegi nga bëgg maanaam maanaam pas-pas yëpp nga màbb ko mm-hmm. ah? euh, lépp lu baax rek nga nga nga nga nga biddaal ko bu ko defee nag nekkuñu Guinée Guinée Guinée Conakry mm-hmm. nekkuñu Arabie Saoudite mm-hmm. nekkuñu Sénégal lañ nekk quoi Sénégal euh, dëkk la boo xam ne affaire tarixa mm-hmm. ak sëriñ maanaam dañuy judd maanaam dañu ko judduwaale. dëkk bu nekk dafa am ses propres réalités. réalité quoi. bu ko defee nag yow fexeel ba su fekkee danga nga bëgg a wax bu wax ji maanaam neex a neex wala nit ñi bëree bari wala fit may la. ba nga wax loo xam ne. Mhm. da ngay da ngay gaañ sa morom. d'accord ngay moytandiku. d'accord Diop Diop ba léegi rek ci wàllum actualité ñu waxtaanee dëkk yi nga xam ne mooy Mali Burkina ak Niger seen doole. Mhm. bokk benn xaalis. est-ce que xaalis boobu dana mën am doole est-ce que loolu mën nga xam ne noo koy wax nga xool ñëpp ndax daana mën bokk moo gën ñoom ñett ñu dañuy taxawal seen xaalis boobu. waaw moom bañ ko dalee wax yàgg na. Mhm. ne lu mel Nigéria nangu wutee dugg.

Niger. def euh, te te Afrique moo soxla loolu fi mu Afrique war naa am monnaie unique. comprendre boo xam ne France du ko garanti. Euh, ndax àdduna di dem ba ñu nekk ci deux mille euh, vingt trois. bientôt deux mille vingt quatre. ba léegi ñu mel ñoo xam ne amaguñu indépendance mais na ñoo xam ne. boo xoolee sax waxuma rek monnaie bi même ba ci.

il faut que nga wut visa. waaw est tamit ñun. Euh, mhm. fii Sénégal immigration bi bëri na extra extra pour nga am visa dafa mel ne da ngay jéggi sarax. est-ce que mhm. jotul tamit état wu Sénégal commence di inspirer si ñooñu même bu fekkee si wàllum diplomatie diplomatie ak dëkk bu rëy dëkk bu mag à travers le monde ñun ñun la mais ñu jëm copier si modèle boobu. non xam nga Sénégal moom lu ko yàlla bindee. Mhm. Sénégalais même ba ci indépendance ñoom dañoo xaar ba France ne leen jël leen seen indépendance. du ko fi ne tam même bu doon day am monnaie beneen bu ñuy dugg wala beneen euh, changement buy am itam mhm. du sénégalais moo koy demandé sénégalais mën na la ndax fi ne tey ku mel ni Ousmane Sonko tey su duggee ba lii dal ko sénégalais mën nañu la gunge mhm. mais duñu àgg tey euh, li nga xam ne euh, trois dëkk yooyu mhm. dañu bëgg a def muy nekk peuple peuple uni am monnaie monnaie unique dina am dina dina gën a yokk sax du doon nekk kii euh, trois pays yooyu ndax jàpp naa ne. lu mel ni Guinée Conakry moom dana leen ñëw fekk peut-être comprendre mm-hmm. ak dëkk yi nga xam ne suba xëy na ñu ñu euh, yeneen def ba. ba booloo ba booloo. waaw mm-hmm. ñoo fekk si euh, coalition boobu waaw. donc li ñuy wax tey jii mooy mën na francophonie. pays nga xam ni France moo leen colonise woon ñu si bëri daal mel ni préparé daal dafa révolte extrême pour tourner le dos à la France. waaw su ne boo xoolee révolte extrême boobu noonu même bu Sénégal bokkul actuellement nii nii. Mm. dana ñëw jour boo xam ne. Mm. loolu moo koy fekk quoi moom doo fekk ji ko mais loolu moo koy fekk. bu mel sax génération bi ñuy gis ak euh, manifestation yu fi yu fi jotoon timit booy yi timit loolu ñuy réclamé parce que boo xoolee lépp loo xam ne ciblé woon na ko pour dem yàq. Mm. dafa mel ni trou France moo fa nekk. waaw xam nga. France moom Afrique dafa doyal ci moom te ñoom li ñu jàppee africain yi euh, mooy euh, ñoo xam ne mënul dal seen bopp. Mhm. Euh, mënu ñoo dem sans la France. Mhm. Afrique France loolu la jàppee Afrique quoi. loolu surtout pays boo xoolee pays yi nga xam ne ay pays yi France colonisé. Mhm. amul ci benn pays boo xam ne nii àgg na ci développé wala sax ah. émergence. ñom ñep ñoo gëna sous développé ci Afrique. par rapport au pays anglophone. wa par rapport ak pays anglophone yi. Mm-hmm. bañ la ko wax sax duñ la euh, duñu génn sa maanaam seen loxo sa politique. Mm-hmm. duñu génn seen loxo ci sa euh, euh, ci ni ngay tabaxé sa dëkk. Mm-hmm. wala ni ngay yoré sa économie. ñom lépp ñom ñokay bëgg ak accaparer. bañ naa ko même investisseur yi sax. yi ñëw sa dëkk ñom ñokay koy

langue officielle euh, français lay doon. Mhm. ñu suñu ne lay est-ce que vous premier nous yooyu tey jii nous lii. la bi fi français sax euh, France comme français africain quoi. Mm-hmm. doon français la kooku lu Sénégal rek bokk na ci. Mm-hmm. Sénégal euh, ci yooyu yëpp du jógee ci loxo loxo Sénégal mm-hmm. loolu mooy ñu bu fekk Sénégal maanaam dem ba Afrique pays africain yëpp daw génn ci loolu génn ci maanaam euh, jógee ci monnaie bi mm-hmm. jógee ci euh, euh, onze kii yooyu nga wax onze accords yi waaw bu ko defee ñoom door cee génn mais en tout cas moom mooy Sénégal c'est le dernier à kii quoi <laughs> waaw d'accord Diop am na am na solo. moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati